sant di la di la gërëm cant goo xam ne duñu wax guléet di sant itam mbooleem ñi nga xam ne ñoom ñoo lay jàppale muy euh, gouverneur bi ci sa ak préfet ak sous-préfet di sant mbooleem chef de service yi di sant mairie bi di sant également journaliste yi nga xam ne ñoo fi nekk loolu ma ne ko def ci turu sëñ Mahfouz ak ñi ma àndal ñu bokk comité d'organisation bi di di rafetlu rek jataay bi ni nga xam ne noonu la tëdd te wax naa ko fi ay yoonu yoon organisation Laylatul Qadr mu si am benn jafe-jafe ak waa administration bi ci dëgg-dëgg lépp lu ngeen mos a diggee def ngeen ko kon dañuy rafet njort ci ne bii di ñëw itam bu nu yàlla dimbalee ba ñu àgg ca le 13 avril jàpp nañ ne noonu lay demee ku gis rek jataay bi ni nga xam ne noonu la noonu lañ ko tënkee noonu la gaawee na nga xam ne ñii kër li ñuy def miin nañ ko te xam nañ ko kon loolu gouverneur ñi dañ la ci sant bu baax a baax di feddali aussi sunu sunu yaakaar ci ci wet googu di xamal rek mbooleem mbokki taalib yi nga xam ne ñu ngi ñu ngi seetaan mboolem mbokk jullit yëpp ci réew mi ak ci bitim réew di leen euh, woo ci bis bi nga xam ne dafay bis boo xam ne bis bu rëy la ndax bis la boo xam ne sunu borom ci boppam moo ko tudd ci alxuraan di guddi goo xam ne guddi guddi alxuraan la soxna may tànnoon ko di ci liggéeyal waajurum wa di sëriñam di sëriñ Touba. amoon ci ndigalal ki nga xam ne jamono jo moo fi nekkaloon Serigne Touba muy Cheikh Mouhamed Fadel mu waxoon ko ci wax ju rëy ne ko di dem ba di ci rey ay giléem te fekk soxna si booba ci ñaari ginaar la ko tàmbalee woon tey jii foog naa ne loolu ñëpp gis nañu barke boobee itam moo topp bis bi ba tey fu ne ci àdduna si nit dafay jóge di ñëw di ko def si Touba ci wetu njabootu soxna si léegi bis bi jéggi ne sax yi nga xam ne mooy kër soxna si foo tourné ci Touba léegi ñëpp ñu ngi def màggalu Laylatul Qadr jumaa ji kenn ku ne gis na ni muy mel kon loolu dañ ci dañ ci sant yàlla di di feddliwaat woote woote boobu di ko barkeeloo ci woote yi nga xam ne mooy woote yu njëkk yi fi amoon te soxna si woote woote woon ko ci tegoon ko ci tegoon ko ci ndigal di xamal ñëpp rek ne leen na ko soxna daan defee amul lenn loo xamante ne bii sëriñ bi ko ci muy li nga xam ne moo yitteeloon soxna si mu daan ko bayal ay tool muy alxuraan ji parce li mu daan jox daara yi moom moo ko daan bay ñax boppam leen daan jox loole ba tey jii ñu ngi koy wéyal mboolem daaree kaamil yi fi mu toll ñoom ñu ngi jàng seen ay seen ay kaamil la ca topp mooy njàngum xasida mi loolu tamit ñu ngi koy waajal bu baax la topp nag mooy teraanga yi ak berne yi ndax képp xam soxna may xam nga teraanga xam nga ci berne kon loolu tamit ñu ngi koy waajal baax kon daal di leen séntu yéen ñëpp beneen bi ci am solo itam mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu waxtaan yi diine yi nga xam ne danañ ko def ci bis bi ndax bu desee juróom-ñetti fan ci li ñu commencé conférence yi conférence am na ci yoo xamante ne bi dañ koy def ci ay teewaay tudd ko ay tudd ay kilifa seenu njaboot dikk fekk si ko waaye ci bari dañ koy jàll rek ci internet bi ngir àdduna sëpp man cee man cee jot ndax loolu ci Covid bi lañ ko jàngee woon te gis nañ ne mu ëpp impact moo gën a yaatu te moo gën a noppali ci nit ñi moo tax am na ci conférence yu yoo xam ne dañ ko jàll ci internet bi mboolem àdduna si fu waay nekk diñ ko mën a jot diñ ci mën a jariñu kon daal ñi ngi xaar ñëpp incha allah le 13 avril ca ca Touba ngir ñu ànd dudal guddi yi nga xam ne guddi gu guddi gu mag la di ndigal loo xam ne doomi Serigne Touba la xalifam Serigne Touba joxoon ko ko te ñu dem ba mu activité ji muy bis boo xam ne ñëpp ko bokk njaboot soxna may gi xañ na ñoom ay ay ndaw lañ ci ay jëwriñ lañ ci waaye fa ñu nekk di ko fa def mboolem jullit yëpp lañ fa toogal mboolem jullit yëpp lañ koy defal kon encore une fois gouverneur ñu ngi lay sant ñu ngi lay ñu ngi lay gërëm di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakatu réunion bi ginnaaw bi ñu féedelwaat aussi nuyoo bi ñu yëkkati di ko tegaat ci loxo sëñ Abdou Lahad Mbacke mu luñ ko sëñ suñ Mbacke ak njabootu soxna may yëpp di ñaanalaat sëñ Mountakha Mbacke xalifa général des mourides suñu borom yàggal ko ci loolu te ànd ak wér di wax na ñi ngi ci euh, jeexatelu ndaje bi bi nga xam ne moom lañ defoon pour waajal guddi laylatul xadr ca mu nekk na guddi guddi gu màgg e nañ ko waxee si njalbeen rek kilifa yi sas ñu pour ñu mën di gunge comité d'organisation yi nga xam ne ñooy organiser manifestation religieuse e loolu moo waral nag ñu woote tey CRD bi lëkkaloo ko comité d'organisation bi mais également service technique yi nga xam ne ñi ngi ci région bu bu Diourbel ñu xool fànn yi nga xam ne xalaat nañu état war na ci mën a dugal loxoom ba bés bi nekk bés bu yemb la si jiitu rek mooy euh, wàllu kaaraange ndax ku ne mbooloo fa ñuy daje kaaraange gi fu jaar mu mu antu te loolu yaakaar naa ne suñu waay takk der yi ah seen liggéey pour naa ne chaque jour si loolu lañ ne yaakaar naa bi weer bi teroog ba léegi sax foo naa ne ci mosquée bu mag ba foo naa ne dispositif bu nga fa ndax xam nañ ne naafale yëpp day day bëri ay doomu aadama waaye terul tamit dinañ leen gunge ci wàllu kaaraange boobu muy yokk peut limu yi nga xam ne mooy limu policier yi nga xam ne ñoo war a saytu loolu waaye également jéem a jël ay barrières jéem ko mettre à la disposition des comités d'organisation euh, gendarmerie également war a saytu bërëb bi nga xam ne foofu la ñuy lawetale également jur yi ñu seetlu si parfois ay ngànnaay yoo xam ne ni dañ koy yor mais dinañ fexe tamit également mu teg fa ab dispositif pour mu leen gunge pour prévenir lépp loo xam ne euh, fitna lay mën a doon waaye tamit ñaari bés yi nga xam ne ay conférence la le ak le onze incha allah te ñu war ko def ci HLM nañ fexe également gendarmerie jéem ko couvrir ndax ay mbooloo yu fa yu fay dajale euh, sapeur pompier également dinañ leen euh, jël seen dispositif ñu def ko ci parce que ñoom it fi mbooloo di daje am na ci rôle boo xam ne ñoom ñoo ko ci war mën a ay saytu peut-être lëkkaloo ko même également ak waa waa Croix-Rouge loolu nañ ci dellu si si wàllu wàllu santé waaye leneen li nga xam ne aussi dolli nañ ko ci muy bassin bi nga xam ne moo nekk HLM ñu seetlu ne mun na am ci bés bi jeexee ndox des fa te mu nekk aussi jur loraange ci xale yi ñu ngi koy sas également su jeexee mu jéem ko vider ba nga xam ne ndox dootu fa amati loolu mooy dispositif bi nga xam ne ci wàllu kaaraange dinañ ko gunge pour bës bi gën a gën a yem di ñaan suñu borom may ñu bañ fekk ko jàmm ñi taali bi ñëw si jàmm dellu si jàmm leneen également muy ci wàllu wër gi yaram donc muy santé ni ko tubaab di waxee dinañ fa def ay postes avancés médicaux li bi nekk ci juróom mais également jox leen ay ay garab mais également positionner ay ay ambulance pour quand même parer tout toute éventualité wàllu service d'hygiène ñu pomper dëkkuwaay yi mais également di saytu ñam yi nga xam ne aussi nit ñi ñu ngi koy jëfandikoo ci ci waañ yi donc loolu également taxawaay la boo xam ne il faut que ñoom ñu jéem cee également def liggéey bu mucc ayib wàllu ndox dëgg la ñu ngi ci weeru koor waaye ndoxit da ciy da ciy baax dinañ toppatoo forage yi nga xam ne ñoo nekk biir Touba mais rawatina yi nga xam ne ñoo wër bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy defee euh, manifestation bi waaye également euh, jox leen ay camion citerne pour que jëfandikoo ndox mi gën a gën a yemb ci askan yi nga xam ne ñoom ñoo fay ñëw wàllu courant Sénélec la ñuy xaar ci moom te foog naa ne engagé wu nañ dañ ko def mooy indi ñetti groupe électrogène mais également wàccee ay descente électrique ci bërëb yi nga xam ne foofu la ñuy def ay conférence mais surtout fi nga xam ne foofu la ñu war a defee cérémonie officielle bi leneen li aussi ñu lëkkaloo koog waa mairie bu Touba mosquée mooy toppatoo éclairage public bi mooy leeral yi nga xam ne moo nekk ci ci mbedd mi mairie Touba mosquée également ñu ngi koy ñaan tamit mu dugal loxoom ci wàllu hygiène bi ñu doon àddu léegi xool nan lay appuyer peut-être service d'hygiène waaye également ci wàllu assainissement donc xool camion vidange yi nga xam ne mën nañ ko mettre à la disposition du comité pour ñu vider fosse yi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi waaye loolu également ONAS dinañ saako ci moom mu indi juróom benn camion diir juróomi fan su ko defee suñu defee ay rotation am nañ yaakaar ne liggéey bi dina dina gën a yem waaye aussi dolli ci ay toilettes mobiles ci li mu li mu ñaar fukk pour mettre ko à la disposition du comité rek mooy wàllu contrôle mooy saytu muy douane ñu ñaan muy gën a yewanal également peut-être contrôle bi waaye également facilité ñi nga xam ne ñooy ñëw di indi ay charretiers ci bés bi jógee peut-être ci frontières yi ñu xool ñu leen ci mun a facilité su ko defee peut-être dem beeg dikk bi gën a gën a yomb ci wàllu bien yooyu commerce ñuy ñaan également ñu fexe ba marché yi ah produit yi doy mais également nekk de qualité maanaam ñoom aussi ñu saytu qualité produit yi nekk ci marché yi tamit yenn bës yi am na ñu ciy profité def si naka su noonu mais ñu fexe tamit ba bépp ñam boo xam ne aussi baaxul pour jëfandikoo ñu jéem koo génnee ci marché yi nga xam ne moo nekk biir biir Touba ndax loolu aussi dina bokk ci li gën a aar askan wi ci bës bi nga xam ne moom lañ woote la ca des rek mooy lii nga xam ne moom lañ tënkit ah su bés bi desee ay ñetti fan maanaam pratiquement altine dinañu wax préfet bu Mbàkke mu dajalawaat également service yi ci Touba ñu xayma Euh, xool fan lañ ci fan lañ ci tool waaye ci wàllu set foo naa ne am na lu ñu fàtte muy bésu set setal bi nga xam ne tàmm ngeen koo def muy euh, le 9 incha allah rabi dimanche 9 avril loolu également Sonaged ak mairie bu Touba Mosquée nañ lëkkaloo seen doole indi seen i jumtuwaay muy wàllu oto muy wàllu également petit matériel mais également ay doomu aadama waaye loolu également am nañ yaakaar ne daayira yi nañ ci dugal seen loxo ndax foo tamit. Euh, bës la boo xam ne pour Touba gépp la loolu su boobaa fanaa taalibe yi war nañ sa mën a jàppandi su ko defee ñu nettoyé Touba ba mu set su ko defee gën a mën a waajal guddi laylatul xadr boobu yaakaar naa am nañ si yaakaar daal di ñaanaat nag sedd de service yëpp kenn ku nekk euh, engagement yi ñu jël suñu borom may la kàttan également ak parce que boo xam ne dañ ko mën a mottali ba incha allah rabi ñu feetee laylatul xadr yi si jàmm te lépp lu ñu fa ñaan suñu borom nangul ñu boot nangul ko ci réew yëpp incha allah fanaa loolu daal moo doon kàddu gi ginnaaw bi naa ñu jox sëñ bi rek mu def euh, ñaan soo ko defee ñu yëpp yëkkati yëpp bi. jërëjëf Mbacke